asalaamaaleykum mbokk internet Lougaré TV euh, ba tey rek ñu ngi fii ci Touba Ndindi euh, ma toog euh, suñu jëwriñ Mame Lamp Fall ñu ñëw nii fi nga xamante ne mooy diwaanam ñëw nuyu si ko saafonte ak moom ziaraale ko aussi tamit maa ngi lay nuyu di la ziar jëwriñ. waaw ah, maa ngi lay ziar bu baax a baax. Dieng maa ngi lay ma nit. di la màggal bu baax a baax. yal na yàlla dolli ziar jëwriñ Mame Lamp Fall tey ñu ñëwoon fi bëggoon a waxtaan ak yow ci wàccaayu màggal gi ak gan yeeg organisation beeg affaire yooyu fu mu toll. dëgg la fekk nga ma mat toog ak jëwriñ yu mag ci kër sëñ Abdou Karim sëñ Fallou ñu wax jëwriñ Babacar Niang moo yor kuréel gi ñuy wax paquetage jëwriñ Ibrahima Mbeng moo yor jëwriñ kuréel gi ñuy wax KMT kuréel Makaarimu Axlaa jëwriñ Ibrahima Ibrahima Sène bokk ci jëmm yi nga xam ne sëñ bi moo leen tànnoon ngir ñu daral ko jëwrinam yi man mii nag maa yor kuréel gi di de ñun nag sunu jëwrin mu yaa ngi ko bàyyi kër sëñ Abdou Karim jëwrin Abdou Ndaw di sunu jëwrin ñun di Baay Faal yëpp ñun nag ñoo yor ndongo laxasaay yi ak yenn ci daayira yi rek fii lañu dal ñoom ñi seen dalang ci kanam boo fa jógee boo fa jaaree di leen fa fekk ñu nek nak di wajal magal gi dañ ko daan defé rek ndax yii yëpp ci sëñ Abdou Karim mu Fallu rek la bok waye li ñaan xar day weesu mboté talibé dana dem bam mu dem bamu yagg mu doonub jorin bu doone jorin am ñu and ak mom ñamu andal amna faw lu melni su amé faw ñu défar seenub dal mu doon ab rek nak ndax sëriñ bi moy sëriñ bi waaye ab waañ dong lay doon boo xamante ni dañ cee togg ko yàq rek di bernde te ñi koy defal suñuy mbokk taalibe la ñu ak ñoom ñoo bokk sëriñ bi moom. kon ñun ñooy seen njiit ci loolu rek nga ñu fekk ñu nekk nii boo doxee tuuti ci kanam di nga fa fekk waa Paquetas sa ndeyjoor na la ci beneen trottoir bi sa càmmoñ nii balaa nga yegg di nga daj ci jëwrin Ibrahima Mbeng bi nga xamante ni moom mooy jëwrinu KMT. sunu jëwrinu bopp nag ñun moom comme ni ma la ko waxee ma nga fale ca penc ma ca kër sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall kon ci loolu rek lañu nekkee nii lii ñu def it ay dal yoo xam te ne daayira yi ñoom lañu ñu daggal ay dàll ci biir mbooloo mi ñoo ciy dal dëkk ci lii place bii di ab penc boo xam fi la ñuy jàngee alxuraan fi la jàngee xasida yi waaye fi la ñuy defee lépp loo xamante ni cérémonie la kon noonu rek la tëddee. Euh, macha allah jëwriñ làmp kàddu yu rafet na te leeral bi aussi tamit am na solo bu baax a baax a baax a baax mais ak tëdduwaay bi nekkin bi fii foofu nan la fa demee aussi tamit bëggoon nañ ci xam tuuti tamit comme nekkin bi. nekkin bi mooy ñun nii dañuy nekkee rek ba màggal gi jeex bu ñu xasee ba dajalee suñuy addiya dem jébbal ko ku baax ki ci wàllu boppam ngir mu defal ñu ko ci màggal gi la ca des ñu ñu téye ko nekk fii rek. fas yene di Togo ko yak ak di berne rek dundal bes bi comme niñ ko santane ci alquran ni ma la ko jang léegi jàng jang khasida, xasida sikurula and ak mbégte ci bes bi ndax bes bi bes la bo xamanteni seigne touba ñuko wutal muy 18 safar nek bes bo xam kep kuy jullit bés bi war nga ko magal ndax kaa leen santale la wax te ku ne xam na ne ku sant ñu dolli ko kon ku ci nekk kéem ni nga ko jàppalee rek ci bés bi noonu la la yàlla di fayee mu nekk bés boo xam ne jëlale naa ñi indi seen ñaq def ci jëlale ñaa ñi koy liggéey waaye ñi nga xamante ne dañoo toog ne ci keppaar gi sax fas yéene di xéewlu rek sëñ Tuubaa da di fay bu ñuy fay kuy xéewlu xéewlu kese nag sakantuma kon ki nga xamante ni moo joxe ñaqam ak ki nga xamante ni moo ko doon liggéey kon noonu rek lañ ko fas yéene nekkee. macha allah jëwriñ Lamp Fall ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax et aussi di waxaat suñu mbokk internautes yi rek ñoo ngi fii ci kër kër jëwriñ Mame Lamp Fall jëwriñ ci sëriñ Abdou Karim Mbacke Fallilou moom mi nga xamante ne moom mooy borom ndindi ndax ku ne ndindi rek xam nañ ne sëñ Abdou Karim moo tax ñu naan ndindi ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal jëwriñ yi nga toogal ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di delloo ziar bu baax a baax jaajëf waay merci beaucoup ok همالي هلا ما هن ما الأبس